ñuy dalal kii di Daffé Bayo euh, jiite conseil régional de la jeunesse bu Sédhiou ñu lay nuyu di la dalal si réew mi Daffé Bayo waxtaan wi ñu koy amal euh, ay fan gannaaw nag bañu ñu lancé li nga xam ne mooy semaine de la jeunesse euh, bañ ko lancé euh, njiitu réew mi yëkkati ci ay kàddu ne lu baax la ndax day tax moom mu jokkook ndaw yi ñu daal di dialoguer daal di tamit réfléchir ci anam yi nga xam ne dinañ gën a améliorer seeni condition tey ndax ànd nga ak moom ci yooyu la kàddu. madame bu am solo la lu may wax wax mooy ñun ànd nañ ci doxalin bi. Mm-hmm. Euh, parce que tey euh, président de la république euh, bu wootee wala bokk ministère de la jeunesse bu wootee woo président de la république puisque ministère de la jeunesse moo organisé. mu bëgg vraiment président de la république ñëw fekkee ndaje bi je pense que loolu lu am solo la te man personnellement ànd naa ci Euh, nu mu ko defee aussi àdduna bi tey ñu bëri gisuñu seen bopp ci conseil euh, ci semaine de la jeunesse ndax jàpp nañ ne euh, seen i mbokk politique rek lañuy jël ñu bokk ci li ni tamit noo ko jàngatee. je pense que wax ni gisuma sama bopp mun na nekk loo xam ne nii. c'est c'est très possible parce que ñëpp mënuñu gisandoo seen seen bopp ci ci mais euh, donc tout compte fait euh, ñun li ñu wax mooy le président de la République a fait euh, beaucoup de choses pour la jeunesse. Mhm. donc ça il faut le reconnaître. certes il reste beaucoup beaucoup de choses à faire. mais quand même il faut reconnaître que le président de la République a fait beaucoup de choses là euh, que li nga xam ne nii moom mooy soixante cinq mille emplois bi nga xam ne nii président de la République wax na ko ci conseil présidentiel mhm. loolu que vraiment le président de la République en train de faire des choses pour la jeunesse la terre mu ngi fi mu ngi déglu nga ko président de la République lu mu wax ci présentation chiffres bi nga xam ne ni terre eh, bi financé na ko ci Sénégal jëi nga xam ne ni def na ko loolu yëpp nekk loo xam ne ni eh, pour la jeunesse la Mhm. donc ak ay formation 3PT euh, bon de formation euh, nga xam ne donc yooyu ay euh, lépp la boo xam ne nii mun mun le président République deful par contre y a beaucoup de choses mhm. ci région sud bi je pense wax nañ ko mhm. que Euh, ñun ndaw Sédhiou dafa am loo xam ne ni manqué nañu. Hmm. wax nañ ko parce que région Sédhiou bu ñu nee moom moo nekk dernière région pour le plan développement te mu nag mu am ay ressources donc ça veut dire que am lu bëri lu li ñu nii de formation parce que bu conseil présidentiel waxoon naa ko. Euh, bu benn centre de formation moo am Sédhiou tey ñu am ñett ñaar ba à Sédhiou benn bu euh, mais ba léegi bu doon amul centre de formation alors que am na ay jeunes yi fa donc loolu ay jafe-jafe la mun am na ay ndaw yoo xam ne ni ba léegi euh, am nañ formation def nañ formation mais dañoo am problème insertion maanaam mhm. na ndaw yoo xam ne nii ba euh, ñu ngi bëgg a formation am ñu formation am na ndaw yoo xam ne ñu ngi lu ñu ak seen projet mhm. mais ba loolu ay jafe-jafe la yoo xam euh, koy dund. Mhm. te boo leen suivre jeune bi nga xam ne ni moom moo. posé woon une question raison euh, c'est vous du ministre du data je salue de matin mais lu mu wax ay jafe-jafe la mm-hmm. jeunes yi war nañ am fu nga xam ne dañ ci euh, dañuy promouvoir euh, dañuy stade municipal ak stade régional mm-hmm. mais aussi wax na ko ci wàllum financement de la DER mm-hmm. DER naam financé na ay jeunes ci région Sédhiou mais pôle emploi bu taxawee ba léegi ndaw yu fa déposé seen dossier pour financement de la part de la DER ba léegi ndaw yooyu seen dossier financier bi mhm. donc loolu ay jafe-jafe la ci euh, jeunes yi ñuy recruter ci xëy ndaw yi am na jeunes yoo xam ne ba léegi ñu seen couleur contrat mhm. donc ñu aussi ay jafe-jafe la euh, ñi lancé appel pour que vraiment président de la république euh, bàyyi ci xel comme que moom moo ne na donc je pense que actuellement ñoom war nañu ne gis seen contrat ñu signé comme seen morom mais quand même mm-hmm. il faut reconnaître que mu ngi def ay jéego mm-hmm. euh, pour vraiment euh, xëyu ndaw yi loolu vraiment euh, je pense que loolu mun nañ ko mën nañ ko seede mais quand même moom ci boppam wax na ko mm-hmm. def na liggéey na mais xam na ni des na lu bëri de manière générale mais ñun de manière spécifique pour pour ndaw yi je pense que des na lu bëri mais quand même euh, am na li nga xam ne aussi def na loolu aussi il faut ko def. ci jéego yooyu le sax ndax mën nañ cee limaale li nga xam ne mooy quatre cent cinquante milliards yi mu teg ci programme d'urgence xëyu ndaw yi tey yow euh, nan nga jàngatee li ni mel ndax jàpp nga ne euh, dina saafaraal xëyu ñàkk xëy yu ndaw yi ci mim réew. saafaraal depuis pour vraiment xëyu ndaw ñu régler ko définitivement. Mm-hmm. parce que loolu yomb. Mm-hmm. mais quand comme ni ma ko waxee milliards yooyu. gis nañ ni personnellement gis nañ ni euh, mu ngi def ay effet mhm. maanaam ñu ngi koy ñu koy gis mhm. euh, xale yi euh, ndaw yi ñu recruter ñuy liggéey comme stagiaire ñuy liggéey dans le domaine de la santé de l'environnement ñu leen di gis quand même je pense que ci quatre cent cinquante milliards yi la yeneen recrutement yi ñu nekk di def ci ci ci ci quatre cent cinquante milliards yi la mhm. donc mun ne quatre cent cinquante milliards yi solution la ci xëyum ndaw yi mais doyul parce que li ma wax mooy euh, ndaw yëpp ñu nekk des des fonctionnaires maanaam mënuñu nekk ñi nga xam ne ne dañuy liggéey ci nguur gi. Mm-hmm. que entrepreneuriat bi aussi ñu ñu ñu ñu dooleel ko. Mm-hmm. ñu dooleel entrepreneuriat mooy lan institution yi nga xam ne ni ñoom ñoo yor wàllum financement ñoom ñoo yor programme état bi. Mm-hmm. ñu fexe vraiment ñu euh, euh, ñuy financer. ndaw yi pour que entrepreneuriat bi mën a développer parce que tant que entrepreneuriat bi développé wuñu ko je pense que xëyu ndaw yi kenn mënu koo saafara le président la République wax na ko boo jëlee ñi nga xam ne ni ñu ngi liggéey nguur gi mu ngi leen di ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ci privé yi néew lool par rapport population du Sénégal mhm. donc solution bi mooy lan ñu promouvoir entrepreneuriat nan la ñuy promouvoir entrepreneuriat mooy ñu financer projet ndaw yi ndaw yi euh, am seen bopp nest liggéey pour seen bopp mun a euh, régler seen problème Euh, loolu war naa mën xam ni euh, mën na régler problème ay ndaw gis nañ ne njiitu réew mi moo ngi def ay jéego ngir nag euh, saafara andi ci ay solution ci li nga xam ne mooy xëyu ndaw yi waaye taxul ndaw yi ba tey ñu bëri ànd ak moom tey daal dafa mel ni seen diggante dafa ñagas. non diggante ñagas loolu euh, loolu mun ma ci euh, mun ma wax. Hmm. Euh, ndaw yi ànduñu ak ci parce que boo ko waxee rek. Hmm. peut ngay dugg ci wàllum politique. non dugguma ci politique mais gis-gis la parce que tey. tey gis nga ay ndaw yu wàcc ci weeru mars politique ku ñu. leneen a leen wàccaloo mooy ay frustration yi nga xam ne parce que ku am jot euh, ki nga xam ne day xëy chaque jour du am jot di wàcc ci mbedd mi mais tey jot a tax ñu bëri wàcc ci mbedd mi am lu leen métti ñu boole ci dëxëñ ko mu ànd ceeg benn mbir wàccandoo ci mbedd mi te ay ndaw rek la woon du ñu ay guinéen du ñu ay ivoirien bon xam nga euh, wàcc ci yoon bi mois de mars il faut ñu analyser contexte bi contexte bi bokkul. loolu rek taxu ko woon jóg de ndaw yi frustration leen taxoon wàcc ci mbedd bi. non lan moo leen frustré. ah waa ñàkk xëy. toog seen ah, buntu kër yi di ataaya. looloo tax ndaw yi wàcc. ci mbedd bi xam nga am na amoon na fii bu yàgg li nga xam ne moom moo ëppoon léegi mais gisoon nit ñi euh, fi bu génn ci yoon bi. donc dama la mentalité yi dafa changé léegi wala seetlu woo loolu. contexte contexte yi ñoo bokkul parce que dafa coïncider ak euh, mbas mi. Hmm, mbas mi mbas mi alibi la rek nag. Euh, euh, nit ñi nit ñi nit ñi xëyuñu. Mhm. ñi nga xam ne ni amuñu xëy den faraatu ci bi ci biti amuñu ko. Hmm. donc ñu ngi ci biir. mu am occasion bi nga xam ne ni ñëw na n'est-ce pas ñu fippu mhm. la preuve la preuve ñu génne lan lañ doon def. fekk mhm. am na ñu manifester ci yoon bi mais am na ñoo xam ne ni dafa am lu ñu doon jël yóbbu ko. lu tax ñu doon jël yóbbu ko c'est-à-dire euh, bu dee euh, euh, dañ doon xëy am loo xam ne dañ koy yóbbu kër gi parce que amul amatuñu amatuñu loolu donc ñu profité ci mais contexte yi bokkul boo xoolee aujourd'hui le président de la publique bu mu génnee ci contexte boobu mais dafa woo ndaw ñi loolu moo waral conseil présidentiel. Mm-hmm. lu tax mu woo ndaw yi lu tax mu woo ndaw yi parce que gis na ne ndaw ñoo ëpp ci mbedd mi. non dafa effectivement. mu ne ah, leen jotee fa yóbbu. mais ne leen ne leen je vous ai compris. Mm. je vous ai compris hmm. ndaw yi hmm. mais aussi am na contexte boo xam ne nii mooy contexte corona. Hmm. Euh, euh, boobu moo nekk ci ginnaaw bi ak ak. Ah, corona moom dañ ko mbubboo rek nag tooñ ko ah, ah, waaye ndaw yi ñoom euh, ñoo ngi ci mbedd yi xëyuñu. oui mais aujourd'hui aujourd'hui faites la comparaison aujourd'hui ndaw yi ñi nga xam ne ni ñu ci mbedd bi Euh, bu ñu wootee léegi ci mbedd bi ndax nañu wuyu. Hmm. parce que ndaw yi xam nañ ne léegi am na début de solution. Hmm. le président de la République waxtaan na ak ñoom woo nañu sans sans sans sans obédience politique. Hmm. il nous a tous appelé no avons ñu dem représenté suñuy région. Euh, euh, au niveau donc du SICAC. ñu dem foofu il a ouvertement dit qu'il a compris. il a compris Euh, d'accord euh, sëñ bi euh, dafee tey jokkoo ak yi ndax jàpp nga ne dina tax njiitu réew mi mu gën a jege ndaw yi xam lan mooy seen jafe-jafe. Ah. ma man ma saluer mhm. ci loolu d'ailleurs le sept kontaan moo koy moo koy def donc ma kontaan ci parce que lii day tax président la république. Mhm. nekk en contact direct. ak population surtout ak ndaw ñi. Mhm. day tax président de la république mu xam jafe-jafe ndaw yi. Mhm. ci day tax président de la république mu xam ndaw yi lan mooy parce que ndaw yi souvent nañ koy wax tout ce qui se fait pour moi sans moi se fait contre mhm. bu président de la loolu mu ne léegi damay jokkoo ak ndaw yi ñoom ñooy poser seen question directement may déglu may may tontu donc je pense que loolu. Euh, euh, euh, lu baax la te loolu depuis conseil présidentiel la ko commencé donc bu koy décentraliser ci ci région yi donc je pense que loolu lu baax la te ñun ñu ngi koy ñu ngi koy saluer mhm. parce que le président de la République boo gisee conseil présidentiel le problème des jakartaman mhm. mais séance tenante da ko réglé est-ce que aujourd'hui quand Jokko Ndaw yi mu ngi fii moment boobu mais lii bu amee jokatamaan yi dañ koy poser directement la question président la ñun ba léegi gisuñu suñu subvention corona bi. Mm-hmm. mais ci conseil présidentiel bu ñu ne jokatamaan yi ne ñun gisuñu suñu bopp si mais séance tenante il a demandé au gouverneur de Kaolack. Mm-hmm. mu ñëw wax gouverneur ne ñun ba léegi jotuñu xaalis. Mm-hmm. mais les semaines qui suivent la situation a été décantée. dëgg la. donc c' est pour montrer que euh, situation bi jokkoo ak ndaw yi. Mm-hmm. dafa nekk loo xam ne nii man vraiment euh, ànd naa ci te yaakaar naa ne ñun ndaw yi lii lañ doon uti lool bu amee dañuy dañuy tàccu ne président la République euh, kàcce ngaalama fu nga jàpp foofu la continuer. Mm-hmm. pour que vraiment ñun ndaw yi aussi ñu gis ci mais aussi nga bàyyi xel ci suñu ndaw yi ba léegi en tout cas à Sédhiou ba léegi jeunes yaa ngi fii am am ñu bëri amuñu xëy. Mm-hmm. waaw jeunes yaa ngi fii am am ñu bëri ñu formation. Mhm. jeunes yaa ngi fii ñu bëri amuñu financement pour seen projet. d'accord mais quand même euh, il faut reconnaître euh, lu may lancé mooy euh, euh, centre de formation bu Goudomp. Mhm. ñu fexe centre boobu tamit ñu ñu ñu ñu pare. ñu lay jaajëfal bu baax a baax Daffé Bayo. merci beaucoup.